aca arbitre ba sifflé na combat ba diggante El Hadj bu Joal ak Daouda Fall numéro bu écurie Balla Gaye caat to ayda bu la neexee nga wax El Hadj borom Joal mbaa borom Petite Côte El Hadj Ndiaye féete gauche Daouda Fall numéro 2 féete droite ñoo ngay lewato fii ci arène nationale 22 janvier 2023 woote bés bi tey mu doon spécial waaw ñu tuddee combat bi dox diggante Boy Maroon ak Cambalaar ndeysaan suñu jeg suñu jigéen bu baax bi ñoo ngi koy béggee bu baax a baax a baax a moom la jag si tuddee combat bi dox diggante Boy Maroon Cambalaar ñoo ngay lewatoo tekki takaara ba tey dara amagul waaw rang muy abonné rang muy partagé di aimé vidéo di commentaire da cee di nuyu samay abonné maa ngi leen di bëggee di leen di siyaat di leen di ndawoo di leen di safoo waaw waaw ñoo ngay lewatoo mais dara amagul Elas Ndiaye wala Thiatou Aïda moo wan gannaaw Daouda Fall bàyyi ko écrit ba ऐसा बन गए नमक बहुत सपोर्ट नक बुलेन मछी मेरे नक अरबी खाते नको बाबा डलू आठ लेन ची बीर के ऊपर जो होल डेसी जो अभी नल लाइट में आप waaw ak bi sifflé na combat ba aca Elhadj Ndiaye cokaas na ko

kontaan ndeysaan xamante baaraam jàppante bàyyante da ngay natante da ngay natante da ngay natante ñaar ku nekk góor ñu da nga ko fal ko fal jàppante noonu day jeex wala jàppante nañu ñu xool ba xam ndax day jeex wala du jeex waaye jàppante nañu waaw comme ni ma leen ko waxee rek. eh plaqué na ko plaqué na ko vite fait bien fait eh El Hadj Ndiaye daan na ko Thiatou Aïda wala El Hadj Ndiaye numéro 2 eh daan na ko vite fait bien fait daan na Daouda Fall bu écrit Balla Gaye vite fait bien fait.